voilà mbokk internet yi ñu ngi fii ci salle de vente euh, ñu daja fekk ñi nga xam te ni ay technicien lañu euh, déglu nañu euh, discours Macky Sall bi ñu am ay mébét ak ay interprétation yoo xam ni am nañ ko ci sëñ bi na nga tudd. man Modou Fall laa tudd. ñu fekk bi nga dégloo président Macky Sall démb ci après loo jàngat ci ay waxam. waaye njàngat yi bari na xam nga Macky Sall moom la ko war rek la def. mooy bañ a posé loo xamante ni sénégalais yi nanguluñ ko ab lay Wade mënuñu ko nangul Macky Sall tu vois léegi troisième mandat ci Sénégal képp ku toog muy Macky Sall muy keneen ak keneen ak keneen dañ ko fee dindi Sénégal yi xeex ci seeni i bakkan wadd ci nit gaañu ci nit jëli ci ay laago ba fi mu nekk nii. waa jàngat bi ñu ci jëlee mooy dafa dafa répondre juste si attente sénégalais yi parce que ñëpp lii lañ doon xaar ci moom bon. respecté na parole loolu rek lañ ci mën wax duñ lu dul encouragé ko. respecté na parole mais aussi respecté na seen vœu parce que F24 doon wax ne par suñu vœu leen du leen lu dul ñu respecté constitution bi te constitution bi moo bañ pour ñu am troisième mu respecté ko respecté na suñu vœu en quelque sorte. ah wax dëgg yàlla sant yàlla rek delloo lépp ci yàlla sama borom. parce que dafa ànd ak conscience tranquille am xam na lii bu ko wootee amaana suba mën naa jur jéeya. léegi mu teg loolu lépp ci suuf xam nga li la wax en cause de ne que nee nañ sénégalais yi ils sont pas loolu moo tax mu teg lépp ci suuf mais yàlla son borom moom mooy dogal kii ko neex bu subaa mu doon candidat wala bu subaa askanu Sénégal fal ko. waaw ce que dafa stratégie la pour mën a jotaat réew mi la kenn xamul boo koy def ci probabilité mathématique mën na nekk à soixante soixante pour cent. donc pro ñi jàng probabilité mathématique xam nañ li may wax boo koy def probabilité mathématique pour mu présenter waat wala mu doon stratégie wala mu dem yoonam probabilité bi c'est un peu à demi mesure wax ji leerul. qui va le euh, qui sera wax ji leer na de nee man doo nekkatuma président. mais nekkaatul président nekkatuma candidat xam nga boo nee nekkaatuma day am ko fay teg waxul ba léegi kan la fay teg benn. amul droit teg ñu choisir. Ouais, ce sont les Sénégalais qui choisissent. Vox Deus, Vox Populis. La voix de Dieu, c'est la voix du peuple. mais dafa am loo xamante ne moo am ci mbir mi koo laaj am na ñoo xam ne ñu ngi koy wax am na ñoo xam ne ñu koy murmurer ci suuf président ay mbiram est-ce que du euh, stratégie maintenant pour liquider n'est-ce pas son principal adversaire ses principaux adversaires même si je puis. loolu xalaat la. sama xalaat la ce sont des des injonctions seulement politiques ce des euh, des des prospections politiciennes. mais mun na am comme mun na bañ am mais man sama xalaat rek la la la lay wax ci mbir mi. déglu nga discours président de la république. waaw déglu nañ ko demb loo ci jàng. jàngatuma ci dara eh, lim ñu waxoon rek la def. aw ma lenn lu ma ci aw ma ci surprise daal lim ñu waxoon moom la ci def saye. kon yow gëm nga ni président ni nitu nitu kaddu la. Eh, gëw ma loolu. non comme que nee nga ma lim ñu waxoon la def kon nitu kaddu la. déedéet ma loolu ndax moom lim ñu waxoon eh, daanaka moom yàgg nañoo wax moom muy dañ. yàgg nañu wax it li moom ñuy daanaka lim ñuy wax moom ñuy gis le contraire mais démb dem naa ba xam naa ne pression moom nationale et internationale ko jàpp ba mu xëy na lim bëggoon moom waxu ko mais def na ko waaye malgré lui ba loolu ñun daal loolu lañ ci am ay ay kàddu yu ñu ciy def. Euh, li nga sëñ bi euh, ñu fii ci ñu fekk la fii ci euh, ci salle de vente nga dé démb nga déglu discours président de la république ban jàngat nga ci am. waaw jàng bi ma ci am daal maanaam mooy ñun dañoo warutoon nekk ci. trois maanaam problème troisième mandat waru woon nekk coow ba heure bii nii parce que loolu noonu dañ koo def ci suñuy constitution mu yàgg mu indi fi maanaam fukki nit ak benn génn ci àdduna jamonoy Ablaye Wade moom mii ci ci ñi ci bokkan di ko xeex ci la bokkan kon ba heure bii nii jàpp moon ne war na nekk werante quoi fii li ma jàngat mooy képp ku bëgg jàmm ci réew mi képp ku ci bëgg jàmm te jàmm tax laa jóg di nga ko rafetlu parce que Macky bu taxawee ne du dem troisième manda adduna bi yëpp képp ku ci bëgg jàmm war nga ko mën a rafet man de loolu laa ko parce que man moom wax dëgg yàlla bi ma dégloo discours bi xoolaat dégluwaat ko bu baax mu wax ko ci français jóge ko wax wax ko ci olof ci olof bi mu gën a leer maanaam képp ku nga xam ne ni jàmm moo la tax a jóg fii ci fii fii nii ci Sénégal war nga dee mën a kontaan. waxtaan bi ngeen di waxtaan nii euh, le Sénégal a toujours donné une leçon démocratique au monde entier. Euh, Sénégal dafa mës a joxe ay euh, wane démocratie boo xam ne bi kawee na torop euh, ba démb gisaat nañ ko loolu waaye démocratie bi doon na gën a bëgg tey jii opposants yi nga xam ne ñoo doon xeex pour que mu bañ a am troisième mandat nguur si bu taxawee ne aw ma troisième mandat wala du ma bokk di xëccoo troisième mandat ñu génn lancé ay félicitations pour wane ne Sénégal fii la toll ci démocratie donc lu mel noonu suñ ko amoon tey ji ñun population bi suñu xel day gën a dal quant euh, à élection bi nga xam ne moom lay wax ne moom la ñuy organiser bii di ñëw. kii kii wax na ko Abdoul Mbaye wax Abdoul Mbaye rafetlu nañu li mu def mais Abdoul mbay xam nga tey jii am na opposant yu nekk ci dëkk bi yoo xam ne ku mel ne Ousmane Sonko tey oraam euh, fi mu yegg bu Abdoul mbay yeggu fa. say euh, ji Ousmane Sonko su jógoon wax ne ah man kat lii rafetlu naa ko trop parce que vraiment. Euh, xaaruñu ko woon ci moom. Bougane aussi félicité na ko. waaw Bougane après des après après après des menaces avant muy julli am na ay mbir yu mu wax am na yoo xam ne tey jii par exemple xoolal fa nga koy waxee xoolal na koy waxee xoolal ko nga koy wax donc euh, langue politique Sénégal nañ ko gën a ubbi euh, képp koo xam ne kii war nga bokk ci élection yi muy Ousmane Sonko di Khalifa Sall di di Karim Wade mais c'est des potentiels candidats qu'on doit laisser. venir exprimer seen seen seen seen seen seen candidature ñëw nit ñi tànn ki leen gënal ñu koy parce que nag aussi destiné Sénégal ñun ñii ñoo ko yore c'est pas ñun ñoo yore destiné Sénégal. Macky Sall nee na loolu euh, constitution bi may na ko woon mu defoon troisième mandat. non parce que la wax non non non constitution mënul may kenn troisième mandat suñu constitution mayewul troisième mandat fii Sénégal xaw ma nag beneen réew. mais Sénégal amul boo dégloo li mu wax loolu la wax. non mais amul droit. troisième manda moom amul kenn ku am droit def ko te loolu xeex nañ ko fi ci Ablaye Wade ay nit ñi dee ci ne Mamadou Diop ci lu ko rey troisième mandat buñ ko mayul Ablaye Wade man na nanu maam man nanu papa man nanu nijaay man nanu lépp te mayunu ko kon mënuñu koo may Macky Sall mënuñu ko may keneen ku topp ci Macky Sall. donc moom affaire wax ko waaw waxu ko mais xam nga toujours politiciens yi il faut toujours euh, dañuy jéem toujours légitimer seen ay ay ay ay décisions mais constitution bi moom moo toog. kenn sexalu ko lem mu ni day changer constitution bi voté lu référendum des suñu ay milliards ñu voté rendu euh, def voté référendum bi ñu jox ko majorité pour ñu changer constitution bi limiter les mandats moom boo bàyyi xel tam si si si si discours am wax na ni moom moo ko fi wax waxaat ko bindul ko kon mënatu ko woon changer mënatu ko woon changer kon boog constitution bi moo ko mayul pour mu changer ko mais nekkul moom volonté du constitution bi xam nga lan moo tax ñimewu la déposé waat peuple Sénégal bi ñoo tax ñun lu ñu am ñoo ko may suñu bopp moom ñimewul ñimewul woon yaa ngi dégg posé wu candidat parce que xam na la ko ciy fekk te xam na problème bi mu war a indil réew mi xam na itam maanaam déstabilisation bi mu war a indil dëkk bi ak réew mi tey euh, maanaam muy fii ci réew mi muy Afrique muy bitim réew fépp foo dem fi mu ne nii actuellement ñu ngi ne jàkk di xool Macky Sall di xool nan lay def te itam euh, boo gisee problème bi fi jóge nii léegi problème yi ñu paase nii ci mois de juin bi andi na fi loo xamante ni ñëpp a nu teg bët te xam na ne bu jàllalee troisième mandat bi lu raw li fi aman mën na fee amaat te moom du ci wëccu loolu la xam. waaw mun naa ne bu dee am na féex bu mu def ci man c'est à 20 pour cent parce que ñun moom ñun ñun dañoo jàppoon ne du bokk te warta bokk ñu léegi moom ñi war a bokk na leen bàyyi ñu bokk. kan ak kan le cas de keneen ku bëgg. ñun ñun loolu rek moo ñu intéressé fi mu ne nii. mais Ousmane Sonko lo yoon daf ko teg loxo donc est-ce que mën na bokk. waa léegi bu doon yoon bu nekk yoon buy tegu ci yoon la ñun bu boobaa moom dinañ d'accord ne moom yoon ko teg ci loxo wala waaye munul bokk mais yow yéen vous savez que ni daanaka réew mi mun nañ fay wax lépp ba mu des yoon. parce que yéen a ngi gis chaque jour moom différence bi am ci ci euh, ci ci nit ñi te wax dëgg yàlla yoon moom ñëpp la fi nekkal warul am exception ne war a nekk ci kii warul nekk ci kii. yoon bu ñëwee ci Ousmane Sonko moom ñu ne yoon a tegu ci kawam bu yoon toppee keneen moom ñu ne le temps de la justice moom dañ koy may temps am kon ça veut dire que fii mën nañ fi wax leneen lu dul ba mu des yoon. moo tax dama gëm ne Ousmane Sonko day bokk te il sera moom le prochain président de la République du Sénégal incha allah. ah waaw moom parce que moom kàddoom la fi am moom kàddoom la fi am. mais bi tam may na ko ko. non non waaw parce que moom ci euh, ci référendum bi ñu defoon oui wala non ci lañ ko dugalal. ci lañ ko dugaloon ci vive Lanoo bi ci lañ ko dugaloon waaye nag moom sëgam moom kàddoom la waxoon te kàddoom bëggul mu teggeeku maanaam mu mu libéré gars yi libéré na ñëpp képp ki nga xam ne nii daal Sénégal jàmm ñor na la te neex na la instant bi ci ànd moom. mais am na ne ko euh, xëy na bëgg na respecté kàddoom mais tam pression bi nga xam ni peuple teg nañ ko ko moo tax mu teg ta mu teg mu génn ci lu mu bëggoon dugg. non xam nga moom président moom moom kàddoom la am tey ji pression bu mu mën a am ci àdduna ah kàddoom la am kon kàddu googu la fonk moo tax mu ne bokkuma troisième candidat loolu lu leer naññi la nit ñi nag ñoo koy jël di ko jël fii di ko dugal fii di ko dugal fii waaye mosu laa wax ne day bokk troisième candidat Macky Sall mosu ko wax mosu ko wax de waaw Macky Sall moom mosu wax day bokk troisième candidat nit ñi nag ñoo koy nekk lu nekk si xelam jàmbur nag kenn xamu ko ah lu nekk si xelam jàmbur kenn xamu ko te Macky Sall taxaw ne damay bokk troisième candidat kon Macky Sall kon tey bu ñëwee libéré no libéré waaw ah, loolu su suñuy volonté lañ bokk du loolu kese lañ bëgg bëgg nañ tamit détenu politique yi ñu libéré ñëpp sans sans le dans les plus brefs délais parce que ak détenu journalistes yi ñuy jàpp yi ñu bàyyi leen ñoom ñëpp parce que ku si nekk sa liggéey ngay def waaw liberté d'opinion dafa am liberté d'expression dafa am ñoom à chaque fois lu ñuy def dañ koy jéem légitimer mais amul benn loi bu leen may lu ñuy def. léegi la cas léegi la cas Ousmane Sonko. bon le cas Ousmane Sonko ñun duñu wax lu dul nañu respecté ay àqam ak yelleefam rek. dañ ko respectel ay àqam ak yelleefam barricade bi ñu def amul benn décision de justice bu koy justifier amul benn décision administrative bu koy justifier kon nañ ko lever bu fekkee dañ koy àtte ñu àtte ko si respecter àqam ak yelleefam non lu jur njàkkare ci man puisque le pouvoir se transmet l'exercice du pouvoir peut amener la griserie pouvoir xam nañ ne euh, bu waree jot rek day ñëw bu waree génn tamit day dem ça dépend du peuple l'option de la population yàlla moo koy joxe comme moo koy rocci comme on le Euh, beneen bi mooy euh, li nga xam te ni euh, wax na ko ni dina moom dina organiser ay élections te du te ci bokk kan kan nga yaakaar ñoo ci war a bokk. élection électorale dafa war a am du moom moo koy organiser. moom dafay ànd day ànd ciy ànd parce que c'est la loi qui l'exige da cee war a ànd. nag man je suis apolitique faraluma kenn je suis apolitique dès l'instant que je vois quelque chose qui me rassure je, je politique mais je suis apolitique à maintenant je ne fais que je suis